wax na ak liggéeykat wax na ak sëriñ yi wax na ak nguur gi ak politique bi actualité la def ñun dañ ci sant yàlla danoo yàgg bëgg lii danoo war di wax actualité vraiment dañ koy gërëm Pape Abdourahmane Kounta ndaxte askan wi dañu soxla ku leen wiiñ ñi wax leen li xew këri diine ci homme politique yi waa lii mooy Sénégal ñun ñoo bokk réew nanu bokk ndey nanu bokk baay nanu xam ni suñu réew la ñu am fii Sénégal la takat maa ngi lay yëgal doo nga fi am jàmm rek ka fi am déedéet ku ko nar a yàq waaw mi ngi bàyyi xel ndaxte joxe na lim bi junni ak téeméer ak juróom benn bisimilah rahmaani rahim saa wu ñu jullee fajar ba pare nanu sant yàlla ñaanal suñuy nit yi kilifa diine yi def ci Sénégal kenn defu ko ci benn homme politique defu kajoor gii kajoor alaaji Malick Cheikh bu Kunta ah Serigne Pir defar boo demee Bawol gee nam meloon Serigne Touba defar na ñun ñëpp ay ceddo la ñu moo tax nanu sant yàlla ñu julli ci yonent bi ñaanal suñu kilifa diine ñaanal télévision yi nu may ba koy mën di dégg foo toll